bisimilah barke borom Tuubaa kon ñu ngi siyaare mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yi fi teew yëpp di rafetlu kàddu yi nga xam ne yëpp dégg nañ ko fi muy ay soññe yoo xam ne kenn ku ci ne euh, bokk na ci li nga xam ne ni dañ ko yóbbaale muy war ñoo jëriñ ba ñu fi dajawaat di ñaan yàlla suñu borom la mu nangul ñu suñu jéego yi ñu fi def ak jataay bi lépp loo xamante ni amuloon yéene ngir ci liggéey sëñ Tuubaa bi ñu fi dajale lépp ñu matale ko ah, di wax ni daara Ah, li yenem ay pas-pasam moy sakku ngeureumal seigne touba sakku ngeureumal seigne touba nak japp nañ ni dara mënuñu ko may luddul dul li sëñ Tuubaa digle ak fa nga xamné ni fa la tégon tankam àndoon ak mag ñu bax ñi nga xamné ni mom lañ fi doon tuddu légui la leen mayon lañ am ci seigne touba japp nañ lool rek mo fi maye dara ba tax na daara Hizbut Tarqiyyah daara khudus yenem moy roy ñoño ca sen doxalin ak sen fañ tégon sen tank ba lañ amoon ci sëñ Tuubaa muy ngërëm ñu am ko waaw ah, daara ji nag ku ne xam na ni ci jamono sëñ Saaliw yàlla yàlla sunu borom dolli ay leeram lañu jël ñu ànd fas yéene ànd ak moom liggéey ñëw ci moom wax suñu yéene ak suñu pas-pas ci ànd liggéey noo xamante ni day gën a dëppoog ni sëñ Tuubaa bëggee mbooloo doxe ni mu am ñu ñu tegee ñu wax ko it leel mooy suñu yéene ci nuñ fas yéenee doxe te loolu mooy gannaaw mboola la mu kenn ku ci ne xëñ na am na ku sa sëriñ am na foo bàyyi ko waaye liñ bëgg lenn rek la muy ngërëmal sëñ Tuubaa am na noo xam ne nii noonu lañ bëgg a tënkee mboola bi mu doxee noonu mooy fas yéene ba li wàllu hiérarchie am kuréel goo xam ne nii mooy ñeent fukki nit ñoo xam ne nii ñoom ñooy bopp mbooloo mi lépp loo xamante ne daara ji dina ko tënk wala di ko doxe wala di ko wax fukki ñeent fukki yooyu ñoo koy waxtaane ñeent fukki yooyu ñu jël ci ñoo xam ne nii daara ju ne moo xam Tuubaa la wala Kaolack wala Diourbel wala Ngaay fu mu fi mën a doon fu fi daara ji am daara rek dana am koo xam ne nii day bàyyi ko ci kuréel boobu bokk ca assemblée boobu. ak ñoo xam ne nii ci biir daara yi la bokk bañ mat ñeent fukk ñooñu ñooy ñi nga xam ne nii ñaari weer yu ne danañ daje ci jenn daara moo xam ji mel ni tey jii wala ñu war ko niñ ko jàppee le 21 euh, le 5 mais war ko daje ca caajaay ngir tënk li nga xam ne nii moom la daara ji di war a doxee ci li nga xam ne mooy objectif fu daara ji boobu it. ñu am ci ñun ci jiital muy ñett ñoo xam ne ni ñoom la ñuy def jëwriñ yi ñuy bopp mbooloo mi nga xam ne lu mbooloo moomu tënk xëy na ñoom ñooy ñu ko war a exécuté kon jëwriñ ji ci ñooñu la la la bàyyi ko ñu jël ci kenn jiital ko muy sëñ Mbàkke Cuun ak ñaar ñoo xam ne nii ñoo topp ci ginnaawam kon loolu mooy li nga xam ne noonu la mbooloo mi tëddee ci wàllu euh, tënk terewul nag daara ju ne am na jëwriñ ja ca ne ju ju fa nekk moo xam Touba la wala Dakar wala Ngaay wala Kaolack foofu ne am na am na euh, am na am na jëwriñ ñooñu nag ñooy ñi nga xam ne ñooy daje saa su ne di tënk ci mbooloo mi ah ñu am feex joo xam ne ni Sëñ Tuubaa defal nañu ko ndax ñaar wala ñetti at ci ginnaaw ñu demoon di siyaare Sëñ Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne moo fa toogaloon Sëñ Tuubaa di ko siyaare ni nga xam ne noonu la ko baar daara ji di baaxoo di def at mu ne dajale suñu addiye dem ki fi toogal Sëñ Tuubaa yóbbul ko ko bañ fa demee it mu yi ñu koy nangul seereel ñu fa nga xam ne mbooloom sëñ Tuubaa lañ seereel ñu ne xam ne ay soldaari sëñ Tuubaa lañ daal di jël sëñ Muntaxaa boole ñoo moom boole ñoog sëñ Muntaxaa daal ñuy def nañu nañu lu ñuy lu ñuy wax nañ koy wax ak moom booba ba léegi daara ji lépp loo xamante ni ñu ngi koy def di ko tënk ci li ñuy liggéey lu mu ci mën doon daañ ci lu ñu ko tënkee ba noppi daañ ci dem ànd ci waxtaan ci ak moom moom it wax dëgg yàlla ñu di ko ñaanal ndax taxawu nañu ndax yegg na ci ba wax ni kenn la ci mbooloom wax ni lépp lu ñuy def nañ ko ko yëgal mu la cay àddiyaam bu dee aw sax sax nañ ko ko wax mu joxe ko ndax at mu am na moo xam moom at moo xam ne ci wàllu màggal moo moo tàmbali màggal gi kon nag loolee di loo xam ne nii moom ci bokk na ci li nga xam ne mooy doxalinu daara ji di fàttali it li nga xam ne daara ji euh, objectif am li ci jiitu mooy mooy bésub sëñ tubaa bi muy màggal gi ndax sëñ tubaa dafa wax ni lépp lu mu am digganteem ak boromam bis bu moo ko may muy bis bi ñu doon wax fii léegi muy bis bi nga xam ne nii wax na ne ci ci la fi la fi xëye woon bàyyi alalam bàyyi réewam bàyyi njabootam bàyyi léppam liggéey yàlla rek tax koo jóg mu dem ba yàlla sunu borom defaral ko ci loo xam ne ni wax na ni cantuk boppam mënatu koo matali ba mu wax ni digal na képp koo xam ne ni sama mbég sa mbég la saa bu la bis bi fekk te ci ko suuf lépp loo mën nanga ko ci def wax ni lu ñu am àdduna ak àllaaxira yépp bis bi moo ñu ko may wax ni fi fi ñaar dend kii da ko fonk kii da ko bañ a fonk ka fonk du ñàkk di gis mukk la muy tiimee ka fonk ba faw kon nag loolu ndigalal sëñ Tuubaa la loxo moo ñu ko joxoñ wax ñu it nan la ñuy màggale mooy def ko ci jaamu yàlla ak bernde jaamu yàlla gi mooy jàng alxuraan mooy jàng xasida jàng xasida it ñu waxoon ko sëñ Saaliw ca loolu ne ko dañ koo def wirdi ci daara ji bépp daara boo xam ne daara ji am na ko bis bu ne danañ fa jàng xasida bis bu ne danañ fa jàng xasida def ay kuréel xasida yoo xam ne ni dañuy tàggatu te di xencu njàngum mag ña nga xam ne ñoo ñoo jota jamono teewoon ak sëñ Tuubaa fu fi daara ji ne njàng moom la ñuy xencu màggal gi wàllu jaamu yàlla gi mu wax ñu ne diggante ginaar bu fi gëléem fu fi kattan waaye toll na ko jëf kon loolu sëñ Tuubaa ko digle ba tax na saabu bis bi yegsee fu fi daara am danañ la wax ni la liggéey sëñ Tuubaa bi jëm ci màggal gi nangam lañ la ci féetale su ko defee nag nañuy wàllu addee ji moom luñ fi sas kenn ne ko nangam mënoo koo ñàkk joxe ndax kenn ku ci na pas-pas ak yitte moo la boole ci mbooloo mi la nga xam ne nag moo la ci àgg moo lay àggale wala moo lay may li ngay li nga la ci wut li ngay wut yaa ko yaa ko xamal sa bopp buñ neen nangam la ñuy def kenn ku ne dana xam la nga ca man ak fa la sa pas-pas toll nga jëfe loolu su ko defee ñu dajale suñuy addee suñu borom ma ngi ciy defal sutura mosu def màggal wala ziar wala lenn loo xam ne nii euh, des na gannaaw kon saa su ne ndam rek lañ ciy am te loolu la ñuy ñaan suñu borom it mu gën koo saxal gën koo yaatal ba pas-pas bi nga xam ne nii waa am nañ ko ba gis loola ba tàbbi ci yàlla suñu borom yaatal ko ba képp koo xam ne ni nekk na Louga wala mu bëgg gis lii ñu xam ne kon Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos Louga taxaw na ñii ñoo fi nekkal mbooloo mi lépp loo xam te ni am nga yéene tàbbi ko ci biir daara soo ko jaaree fii ñu ànd kook ñun ndax ànd liggéey sëñ rek moom moo ñu moom ñu boole xanaa doon tàmbale loolu rek jox sëñ Moustapha wala sëñ Mbub kon li nga xam ni sëñ daan noo nii la daanelee rek ñu fas yéene soxfe foofu moo di daara ji moom mbooloo mu dajale ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa rek liggéey bi tam ñu fas yéene ko teg ci ndigal ak defe ko ni nga xam ne noonu la ko Sëñ Tuubaa bëggee te noonu ñu ko waxee sëñ bi leeral na lépp bi jëf jëf na ñi àndoon ak moom gis mu bind bàyyi fi leeral ñu yoon wi lépp leer naññi te lépp tënku ci ak taalibe rek dara te ak taalibe mooy lislaam rek dara bañ cee génn lislaam kon ci biir loolu itam daara ji loo xam ne daara dañu ànd gi ñu ànd itam dañoo ànd ngir dimbalante te yàlla tax loolee li ci firnde bëri na ci gone yi ñoo xam ne fii mën naa wax ne ci daara ji lañ nekkoon ñu leen di taxaw mag ñi di leen taxaw ba fan yi ba jamono yi mën naa wax ne ña nga bitim réew yor fa ay poste yu mag di liggéey yor am am teranga di jàppale seen i wayjur te fonk it seen i sëriñ ndax mbir mu ne na muy doxee da cee baax leeral ko daara ji yaakaar ni naka jek bañ doxé ba légui ni ko sëñ daam waxé ba ci sas yeeg lépp loolu lépp dañ ko léralon señ bi señ salim mu lu ko nga xani amul kenn kuñ ci sas wala dila ci tek lo xani mu lay ay wala ay jafé jafé ñun dal ay talibé ñu xani di liggé señ Tuubaa te señ bëgg señ Tuubaa nak moy moy moy li nga xani mën na wax ni moñu gënal lepp moy buñ sañon ndaw ñepp bëgg señ Tuubaa di liggéey sëñ Tuubaa ndax señ Tuubaa rek raw kay bi ndax jamono ji na yàqu koo xam kenn mënu ko misal sëñ bi rek mooy rawukaay mooy mucc kaay boo gisee nii kii doon wax léegi daano fi ñaari yoon sëñ Seexuna Sylla mi ay ñu ay yu baree bari ay Seexuna Sylla yu baree bari moo am ci dara ji ñi nekk ak man daaray Tuubaa xam nañ li may bu baax nga xam ne kon Mbàkke ñoo ngi lay ñaan sëñ Mahamadan mii fi nekk teew ci jotaay bi di sëñ Tuubaa daa mel ne suñu xel war naa dal su rafet suñu njort war naa rafet dañoo nekk di liggéey sëñ Tuubaa di waxtaan sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne deret dugg suñu biir mooy sëñ Mahamadan mii toog sëñ Seex Baara Mati lay damaa mos a wax ne ma yàgg na ne ma maxtaar sëñ tubaa dara ma taxeeb boobu xaw ma sax lu may wax ndeke damaa bëgg a dimbali rek ndax ñu xam njabootu sëñ tubaa ñooy ñan kon dañ xam ne ñun suñ liggéey bii maanaam njabootu sëñ tubaa gi lañ fi nekkal doon seeni soldaar laxasaayu daara ji sama xel da cay yàgg dal boo wax naa ko tey ji sax ak ñi nga xam ne ñoo àndoon kilifa yi nga xam ne dañ fee nekk ci ci dëkk bi muy sëñ Mahamadan mi ak sëñ Maham ku mel ne sëñ Mahamadan moom moom moom sëñ Mutala bi ñu yàgg nañ fee ñëw yàgg naa at yi weesu ci ay cant yoo xam ne dañu fi doon woo waaye bi ñu gisee ñu bootu ci ñoom loolu dafa dalal xel loolu rek mooy ndam li sëñ tubaa dafa dafa am mat dafa am ay jëwriñ yu mat sëkk yoo xam ni sëñ da leen a fàggu fii ba bis pénc yoon yi loolu du ko rafle mukk te loolu sëñ Muntaxa am na lu ci wax mos a wax Baye mi fekk na ko wax nañu ko ñaari yoon ne sëñ Tuubaa day sunu borom da ko defal loo xamante ni ku tedd ki li muy baax baax. loolu sax moom rafet na ko daane loolu mooy lan daane ay ngir ñoo xam ne dañuy mën a téye lislaam téye yoon wi wallahi alazim yoon wi ñi ni ko sëñ Sidi Muxtaar yoree doomi sëñ Tuubaa yore woon ko ñii noonu lañ ko mën a téye kenn koo jël ci ñoom mën na koo téye sëñ Tuubaa def na ko ci ñoom ay rek gars yi nañ xam li ñu am mooy lan daara ji de man xaw ma kan waaye rafet naa ci njot amul jenn daara joo xam ne dana ko féete kaw barke xaadim rasul amul genn daara joo xam ne daara lu ko ji daara istaraxe dana ko daara xuddos dana ko féete kaw te te te te te te mbir maa ngi suñu kanam nañ dox di xool mandarga yi rek cee bari dafa feeñ da ngeen dañoo ñëw fekk leen suñ tubaa ni ci seen biir mooy sëñ mahamadan mi nga xam ne moo leen jiite yéen ñëpp ma ne tey laa ko gis waaye sama xol daa sedd sama xol lool barki sëñ tubaa te maa ngi leen koy seeral sama xol da cee sedd lool ñoom ñoom ñooy sëñ tubaa ñoom ñooy sëñ tubaa sëñ tubaa dafa matale te kenn du ñoom nag ma wax leen loolu te leen rek mooy suñu ndam nañ ko nañ ko waxante bañ géegee daara ji ba léegi dara leen rek moo ñu mës a yokk mooy fonk njabootu sëñ Tuubaa fu ñu woo ñu dem fexe sàkk seen mbégte loolu rek moo ñuy moo ñu yëkkati moo ñu moo ñuy jëme kaw te feeg ñi ngi ni ngi teg foofu suñu tànk dara du ñuy rafet du am dañuy jëm kanam rek daara ji day gën a yokk ni ko sëñ Saay doon waxee ndax ña ngay yokk daana ko wax kon feeg ñi fonk njabootu sëñ bi rek sunu xel di gën a nan nan a dara suñu xel te xam ni ca kaw ci kanam rek lañ jëm duñ dellu ginnaaw mukk kon Mbàkke ñu ngi lay sant bu baax suñu yaakaar gën naa gën naa dëgër suñu xel gën naa dal na la wóor ne Sëñ Tuubaa lañ lay xoolee biñ dikkee fekk gars yi booti ci yow ñun ñëpp ànd nañ booti ci te xam ne nii bët bi ñu xoolee sëñ Sidi Muxtaar bët boobu lañ lay xoolee bët boobu lañ war a xoolee njabootu Sëñ Tuubaa gépp loolu kese mooy sunu ndam na xam ne sunu mission ñun xaw ma istarxe daara xuduus mooy taxaw njabootu Sëñ Tuubaa gi ndax ñooy yoon wi ñoom la fi Sëñ Tuubaa bàyyi ñu mat sëkk lañ doon jamono dafa yàqu yàqkat yi bari ñiy jaxate xel dafa bari waaye ñun nañ xam li ñu am yoon wi sëñ Tuubaa da koo téel boppam dafa andi ay jëwriñ ñu mat jëwriñ ñu mat liñ doon sëkk kenn ku bokk ci ñoom lu bokk sëñ Tuubaa yemut ak lenn sëñ Ablaye Mbuub mii tax ma naw ko daa bëgg sëñ Tuubaa gëm sëñ Tuubaa gëm ko wér daa gëm sëñ Tuubaa léegi bi ñu sëñ bi ñoo bokk fi ñu toll dama ko juñ rek moo xam mu ne ko yow dégg daaj da ngay waxtaan ci sëñ Tuubaa ba sa dënn tàng jën nga dikk ci moom boo waxee moom bu la xoolee day xulli bët yi nee na sëñ Tuubaa bokku ci ajaat baar bi ca kaw foofu lañu war a nekk sëñ bi rek nañu gënal lépp dañ tàmbalee ci sëñ bi yam ci sëñ bi ay njàngaleem dafa mat sëkk aw doxinam daf ñoo doy sëkk amul leneen luñ ci dolli tàmbalee ci sëñ bi yam ci moom doon ay murit yu dof fii demoo ba ne da ngaa dof rek des na dofal ci sëñ bi rek dinaa ko wax gone yi waa nii na leen mën leen bas jenn mi ci xasida yi sëñ Tuubaa rek yamuli ko dara foo ko fekk mi ngi jàngi xasida buy dox mi ngi jàngi xasida buy nelaw mi ngi jàngi xasida buy buy buy waaxu muy jàng xasida xasida yi lay waxtaanee du ci doyal bu ñee daara ji répété mu ne du taxaw day lig day continuer ne roy leen ci moom ndax yàq koy dafa bari sëñ Tuubaa li ñu andi daf ñoo doy te loolu dafa ja te jotaay yi lañ ko mën a waxtaanee sëñ Tuubaa doy nañu sëkk ñun wasalaamualeykum isbu tarxiya daaru xudóos tàggaliwul kenn ak waajuram na leer isbu tarxiya daaru xudóos tàggaliwul kenn ak sëriñam isbu tarxiya daaru xudóos tegul kenn lu mënul lebloo kenn ñaanloo kenn lu dul li nga xamante ne nii moom lañu ñu tubaa wax ne nañ ca tege ñu tege ca jàng alxuraan ak jàng xasida yi nekkuñu ci leneen lu dul loolu. ku leen ku ngeen dégg mu nekk ca leneen moom caat ñun ci lii la ñu ne te itam ci lañ ñu teg ci lañuy nekk ci lañu ñu fas yéene faatu leneen lu ngeen dégg nag bokku ak lii na leer leneen lu ngeen dégg bokkut ak Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddoos. Daaru Xuddoos fii lañ tege lii lañ sëñ saali wax ci la ñu ne teguñu kenn loo mënut tàggaluñu kenn ak bokkam tàggaluñu kenn ak sëriñam dañuy naggar kenn ku ci nekk la nga la nga nàmp ci sëñ Tuubaa di ko nàmpal sa moroom di jàng xaside yi di ko dund ci pas-pas bi nga xamante ni moom la mag ñi daan nekk dan ci nekk ci ci ci keppaaru sëñ Tuubaa tey jii li fi jib ku ne xam ne ne sëñ Tuubaa kese la sëñ Tuubaa mi ngi suñu biir ku mën a waat ni sëñ tubaa mi ngi fii ndax mi ngi nii toog seere lii ñuy def kon ñun amuñu jaaxle ci dara kenn ku ci nekk na xam fi nga war a teg sa tànk xam ne gone dafa war a wet mag ñan jàng nañ bokk nañ boole jàng li gën a am solo ci daara ji mooy nañ fi euh, euh, euh, sa wax ci juróom yi na fi sax jàng téere sëriñ bi na fi sax sax ci diine na fi sax loolu rek bu ci yemoon doy na leneen la ci des kenn ku ne am nga foo ko defee te yaa nga ca bu ñu waree daje ci màggal dana ni woote ne nangam la ñu def ci màggal bu ñu waree siyaare ji danañ ko def danañ woote ne nangam la ñu war a siyaare teguñu keneen leneen. gawuñu kenn kenn ku ci nekk dafa am foo war a taxaw ci pas-pas ak yitte Serigne Touba lim la jaral infaq mun taxaw wax nañu ko. bu ñu xasee ba def loolu nag infaq amul fen amul amul fu mu yem kenn ku ci nekk li la Serigne jaral yaa koy yaa yaa koy ngacc si sa biir di ko def ci yoonu Serigne loolu kon amul fu waaye fii lañ taxaw loolu daal laa ci bëggoon a dolli di jégalu baax. li ñuy def loolu rek lañ war a def ndax suñ borom dafa wax ni ma xalaqtul jinn wal ins illa liya'buduni suñ borom dafa ñu bind lu dul rek ngir ñu jaamu ko nit ak jinn yi loolu rek moo tax suñ borom bind ñu. kon leneen luñ def lu dul jaamu suñ borom ñu ngi ci erreur rawatina nag sëñ tubaa mii nga xamante moom lañ topp yaakaar ko. mu incarné lépp loo xamante lu mboolem luy lu baax wasaayil yëpp luy lu baax dafa daje ci moom kon ku suñ borom taw féexe la nga nekk ci moom ku war a xam bu baax fi ngay teg sa tànk Matar wax na am aspect bu am solo ndax jamono ji fii mu toll ci wàllu yàqute man ñaari tout le temps dama bëgg ñuy waxtaan ci loolu ñu xam ni waruñu rey ab fokat ab musicien ab footballkat yooyu amul solo waruñu roy ab mbërum làmb ki ñu war a roy mooy sëñ Tuubaa te loolu it dañ ko war a wax tout tànk yi nga xamante ni dañ ñoo meññ ndax télévision yi ñu ngi ci suñ biir kër yi duñu fekk ba ci biir kër yi li ngay bañ ci sa bopp ñu di ko def ci say doom te doo ko yëg kon tubaab yi ñoom ñu xar ñu sori leen ci côté boobu war nañoo gën a góorgóorluwaat bu baax a baax ci wet googu yar ci tutànk yi xam ne lii rek mooy li nga xam mooy am solo tey mooy am solo ëllëg sëñ Abdou wax na ko xu anfusakum wa ahlikum naaral na suñ borom wax ci alxuraan na ngeen fegal seen bopp sawara ak seen ñooñ te fexe ba mucc bàyyi say waa kër loolu dara jaru ko kon nañu gën a góorgóorluwaat gën a laxsaaywaat xam ni dara desu fii lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey sëñ Tuubaa rek moo fi ne lu ma def lu dul liggéey sëñ Tuubaa rek dama juum naa lu ma bëgg sëñ Tuubaa def ko ñun ñi tam noonu lañ mel lu ñu bëgg sëñ Tuubaa fekk suñu ñi kon bañ jógee ba léegi moo ñu teete nekk ci suñ kanam ak suñ gannaaw sëñ Saliou it waxoon nañu ko wallahi alazim waxoon nañu ko ñii la ko waxee woon mu ni lii ma leen di lijjanteel bu ngeen ma wóoloo danaa ko lijjanti te muy gën ci yéen gënal leen te di ngeen ci daje ak tawféexi sëñ Tuubaa ñaa ngi jégalu wallaay lancim tawféex nag fekk nañu ci ndax li tax tawféex fekk nañu ci jenn jëmm ñun ñenn dañoo kuréel bu néew la woon di jàng ñaari guddi màggal yi buñ jàngee ba mu àgg dix dix dix sept safar dix huit dix neuf safar mu woo ñu ñu fanaanee waat jàng ba bët set mu ni njàng mi ne dafa yéemu lool fu ma dégg njàng mu neex rek seen xel dem ci yoon ci ci ci yéen loolu moo ñu daf ci njàng bi ba sëñ Cheikh mu sëriñ Saaliwu ni ku ne xam ne ma ci ña ci xasida yi lu ne bu ma ko sënca roy sax ci sama waaju tedd yooyu sama waajuru jigéen ñi ñi ko meññ gàmmu ak lu baax lu dañ ci lañ ñàkkoon waaye xam naa ne yéen de li ngeen am ci njàng mi xusuus yi la maanaam lu leen suñ borom jagleel la ñun sax xamuñu lu mu doon loolu nag du dara lu muy bëgg sëñ Tuubaa rek lii moo li war a dox ci àdduna bi leneen waru fee am lu dul bëgg sëñ Tuubaa te di ko liggéeyal moom rek moo fi ne te keneen ku jël lu dul wallaahi da ngay perte

bàyyiwulul jeexal ndax ki tibb ci loxoom nga ñëw jox ko mu def ko ci yéram toogaaleeg moom bi mu jóg xal yi noonu la wadde bàyyiwul dal ci yére yi moo tax dañu war a bëgg sëñ tubaa te yaakaar ko lii ñuy wax ci sëñ tubaa rek la nekk l'islam yéeg-yéeg la du loo xam ne ngay nekk fii di théorie gars yi di andi di leeral non non non lii mooy l'islam wallahi lazim nga di ko wax muy neex ci yow di daw ci sa deret nga bëgg sëñ tubaa te doo ko booleeg dara gars yi seen jël yu ñuy daan mais sëñ la li mom rek mo wara am ci addu bi dafa wara yaatu nak ñu yaatal ko ku baax waxon na ma mbirum suñ borom du tas ba àdduna tukki waye dina tassaro nak fune dara dana fa ne nañ yi seigne Tuubaa ñeneen te li mo wara sauver àdduna bi parce que seigne touba il est le sauveur celui qui a sauvé le tout bu àdduna bi yëpp si seigne touba moko wax wallahi alazim daf ko wax dafa wax ni ci ci ci ci ci ci xaside gu wax ñi ngi koy jàng li rabbin khafurin wa allim niya ilman la wax la dunniya baari مطيعا تقيا مفلحا وين يرسل الشيخ بالك ده مو مو سبب بوبل بي باركي سنتوا نون لدمي أدمي بيب نون نون نون سنتوا كل سبب بيم كده في مي خم خم بو خم يهان مول الدنيا نيت نيكو تغوتي لو فل محفوظ مدفك كوي توب سنج بروم مفلحا مي كتره وين يرسل الشيخ بالك lolu ko lolu ko suñu borom def kon koku buñu wax jëm ci mom dañu wara sante te gëna gor gor wat la xay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 suñu mbokk taalibe yi fi ñëw ñëw ci Louga ñu ngi leen di dalal jàmm di leen nuyu di leen ziar tey bég ci ñëw bi ñu ciy bég lool di ñaan ci barke Sëriñ Tuuba jéego yi ngeen fi yi ngeen dox ba ñëw fi yàlla nay nekk ay ndëggu ci àjjana te ya suñu borom defal leen ci ngërëmal Sëriñ Tuuba lii rëy na ci ñun lool ni ma ko waxee sànq rek ñoom sëñ Moussa bi li sëriñ bi wax boo demee ba jamono lëndëm gisatoo sëriñ bu mat sëriñ na nga wut àndandoo yu mat àndandoo sëriñ bi day wax dañ naan xuqal bu kaawu sëñ bi da ko bind te liñ naan tawariya tawariya mooy ngay sëñ bi da ciy melal da ciy wax saaba yi fekk na ay ñooñu boppam la ci jublu لمن ورفخة وهي إخوان لهم عمم مع الوفاة بصدق في الأقوات نتكي بوي أند دي أندك نمتا أندل دي سليم بي وقت نهج بطي نان آه، إذا كنت في خوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى معرض ونكي تي سوسيتي ولا نكي تي بارب wala nga nekk ci kuréel wala loo mën a ne seetal ñay tànneef ya ngay ànd ak ñoom waaye bul seet ña ci gën a doye ji ngay ànd ak ñoom sëñ sa am naa faral di na yàlla doon leer naa faral muy muy wax ci ci waxtaan yu am solo yooyu bay misaal ab tubaab bu buñ naan Molière bu naan quand une personne on on prétend se régler c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler mm. nit ki booy koy roy da ngay seet la gën a am solo ci moom nga roy ko ci loolu te lii rek am solo boo gisee nit ñi sànq buñ tuddee sëñ Tuubaa seen xol yi fees ñuy daanu loolu moo sos yoonu murit sëñ Moussa doon na misaal di nettali mag ñu baax ña nañ meloon taalibe yu njëkk ya nañ meloon naan di daanoo ko jóg bul naa ko fii daanu yeggagoo ku yeggul ca kaw doo daanu bay jóg di wootaate mm. kon loolu lu am solo la Euh, xanaa di gën a soññ suñu bopp di soññ mbokki taalibe gannaaw bañ ci jiital suñu bopp sànq ñu njëkk a wax ñépp wax nañ ko fi xam ni yoonu murit li ko sos mooy liggéey jaamu yàlla man sart bi ma bi may wax bi ma tëral ñoom sëñ Moussa biñ neemaa dañoo bëgg nga gunge ñu ci ci suñ daayira bi dama neen man yàlla damaa bindee sama nature mooy duma ma nit ku bëgg mbooloo yi te li may ànd ak yéen mooy dëggu ak ndigal ak tënku ci ngërëmal sëñ Tuubaa ak yitte sëñ Mbay Jaxate daan yittee di koo mu murit mbooleem murit bu ko am sangam gërëm ko la muy wut lépp jàpp jàppandi kon yitte mooy pas-pasu bu murit man ko man ay mbooloo gi man ñoruma ndax sëñ Tuubaa li muy def du ko def ci ay mbooloo gi sëñ mu saaka day wax wax ju am solo danaan bari soxna ak naari góor ak alal di am taaxi kaw say murit naa nërëm taxul bàmba jox la siroom ka jégal dëggal ak ndigal ak ngërëm ñooy njëgam jógal farluwaatal te yeesal sa jëf te bul mel na ñi wax ne jëf wëy na cam xanaa jëf ya daa am du yàllaa taxoon xanaa pay ya daa ñëw du yàllaa ko am te yàllaa ngi jëf yaa ngi pay yaa ngi nii sëriñ benn mes waaye mbóot yaa ngi am te sax jëmm joo gis dafay xëy ne mes waxam jaag jëfam jaafa des tim ngiram alwa